Tard de boyahou. maa ngi leen di ziar maa ngi di ziar di ziar ngi message yi dul jeex dama tardé dama don linge Europe lañ nek dagay ngay liggéey rekk di jéggalu di jéggalu gars def leen ay cœur parce que ñu ngi koy signaler en masse té bon, je sais pas ndax dina am temps sax pour def ko sur TikTok xaaral ma xool est-ce que dinaa mën a démarrer live bi sur TikTok en même temps gars yi dañu ñëw nañ en force <laughs> ku dugg partager ku dugg partager je suis désolée c'est rare que may que je sois comme ça en retard, 5 minutes, ok, mais 15 euh, minutes, mon manque de Euh, un petit instant. mais tout ma tuuti rek vous on un live démarrer le live sur TikTok TikTok que de sauvage Je ne sais pas si je peux le faire comme ça. J'aimerais bien le faire aussi sur TikTok, comme la fois dernière. Bon, voilà. Sur TikTok. En même temps ku vous partagez, que dugg partagé gis nga ñu ngi commencé di di signaler le live donc euh, naa beneen jour su def euh, publication je le ferai également euh, naa leen jox également le lien euh, du compte du compte du compte TikTok en même temps Que hein. ku dugg Manglen Manglendizia, Manglen Dizia, ziar partage, ah. euh, <laughs> ngi vous di partage. vous dugg partagé ku Dans linge Mangi des goulots. Dans linge Dans mon linge donc gars yi vous partager que ce soit sur TikTok ou le Facebook et mettez surtout des cœurs hein, euh, parce que nous signaler live en même temps les ma colle, ça euh, sama sommaire donc sans plus tarder on aura des invités Hein? dinañ am ñaari euh, ñaari Je me demander am ben contre truc que j'ai pas fermé la fenêtre tey live une heure comme d'habitude wax lu am solo jox quelques révélations yi en attendant voilà gars yi donc le sommaire sans plus tarder ginnaaw bi ma leen ba pare Cheikh Bamba ah Safiatou Diagne maa ah, Khaya Moutar aussi maa maximum de cœur hein que ce soit sur TikTok ou bien sur euh, Facebook maximum de cœur parce que euh, Denis signale live voilà jéggalu accepté dañuy Irène Gomis maa ngi nuyu bu baax a baax a Abdourahmane euh, Kouaté également l'ambassadeur Oumawad Keur Wade ak wa rewmi mang maa di nuyu ñom Babacar euh, Mané euh, ñom Babacar Mar plutôt ñom Mané également mang ngi di nuyu bu baax a baax Khadim Ndiaye wa New York ñu ngi leen di nuyu également bu baax a baax Ndey baax Ndeye Gueye si noonu am na benn audio buñ ma yónnee buñ mako ko heure bi rek ak ki ma ko yónnee dama ko fonk nak bu ma yónnee rek sa fek amna amna amna lutax wuu bi dina saf donc bi mom wa passef lañu voilà donc wa passef jóg instant bi ni amna na militant yoo xamante ne ni kii damay nëbbu photo mais gars yi partagé nañ ko de nombreuses fois euh, euh, mi ngi ni donc audio bi mëna ni tégal bi ci kanam xaar leen ma def ko ni. mais de façon euh, jall na un peu partout mais bëgguma gars xam ñu mel ay ay ils sont trop trucs waa Pastef la donc si une manifestation euh, dina l'intégralité, comme quoi déception bi pour la Sénégalais les Sénégalais euh, lambda ils sont déçus ña nek bir que ce soit sympathisant ou militant ñu ci aussi découragés, ils sont déçus tout à l'heure même bu ngeen l'écrivain Boucar Diouf Boucar Diouf également nga xamantene ba mbir mi tangé ba tank ñom ñoo doon wax xam nga voilà donc di di sànni xeer gouvernement ba won donc le régime de Macky Sall euh, mom également ci boppam def na ben sortie Jeune Afrique euh, également du ñëwaat di wax ci la déception des Sénégalais euh, ci nguur gu bees gi voilà donc franchement xaar leen sax ma ko xaar ma télécharger ko euh, un instant mais leen ma tuuti ma jël ko dugal ko may leen ma tuuti rek ma le ko euh, transféré ko sama bopp voilà ni lay demee n'a leen tegal n'a donc euh, donc donc audio waa Pastef dañoo nous décourager complètement mais je vous donne donc rapidement comme on est en retard rapidement donc le sommaire donc le sommaire ni lay tëddee donc dinañ waxtaan ci voilà comme vous le savez l'erreur.net d'ailleurs bind Euh, maa ngi nuyu Dame Dieng et tout le personnel également de euh, Leral TV ak aussi le monde à Dakar nouvelle télévision euh, sénégalaise Euh, également Marine de Nouyou, di euh, toute la presse donc une frange de la presse yi nga xamante stigmatisée, dañ a stigmatiser euh, dafa am acharnement ci nous, voilà nous Dakar Times nous waa e euh, voilà ainsi de suite hein, donc voilà nous euh ni des médias également hein, waa des médias également qui dit Bougane sama c'est comme mon frère on a été on a été on a été ensemble à nga mais dina ci ñëw légui légui ñu ko sol ko ko seulement juste rek ñu fàttaliku euh des médias ay Sen TV euh, également euh, wa Sen TV euh, la radio également en tout cas support des médias ñu ci bari dañ jappalé woon Ousmane Sonko ci xéxam bi enfin je veux dire amna luñ ci participer en fait parce que dans les ba on bop bopp buggaan ci boppam sax groupe am mon problème télévision bi ay émission yu melni ne Ndumbelaan donc euh, euh, ki mom yor yor ci Saliou Guèye dafa ñu def ko ben ben on va dire euh, émission propagande donc dañ ko joxone espace xam nga mu melni sax mom mom dañ ñu ba dafa mel ne Saliou Guèye mom mom moomoon TV en fait voilà donc euh, boo daan émission Doumbélane mon dama à un moment donné dama bàyyi woon di seetaan Dumbelaan kal ko ci jàkkaarloo du souffrir ak Bouba xam nga mais au moins le plateau était plus équilibré opposition pouvoir etc. bien qu'il y avait des chroniqueurs bizarres mais ñu waxante deug sen TV ci sen plateau yu bari euh, amna fa sax ben journaliste bu jigen bo xamante ne nii pas pro chef la nëbatuwul gis ngeen ko ci TikTok bi euh, ñom Azoura Fall diko gëreum euh, c'est un le gai meloon ni moom mu am actionnaire en fait actionnaire là Tibir biir Sen TV des médias tellement il était à l'aise il était à l'aise voilà platon Ndoumbelane c'était c'était pas du tout équilibré euh, il y avait bu les chroniqueurs plus les invités c'était tous contre l'invité boo xamante ne feuilles jógee ci régime bi sot ça, exactement comme comme comme va fi une nañ de defee c'était ça donc léegi nag instant bi nii gis nañ ne ba euh, waa Sonko yi nga xamante ne Sonko ak ñi mu àndal amuñu xarit amuñu amuñu àndandoo gëmuñ kenn seen bopp lañ gëm te fu nekk ni ñu ngi wëlbatiku seen ennemi numéro un c'est Bougane Gueye Dany voilà ci wàllu politique c'est Bougane Gueye Dany ci presse bi ñu ngi laal fépp à part seeni seeni presse bopp nga xam ne diaspora bi dañ leen daan wéy seen journaliste muy Walfadjri yi di yenn chroniqueur yi ci yenn site internet yi mais yenn yenn yenn yenn ñenn ñi nekk ci presse bi tey di dund ñu lu ñuy dund euh, mu metti trop ci ñoom mais ben, à un moment donné euh, voilà c'est comme si dañ doon scier la branche wu ñu toogoon donc et ça faisait l'affaire de Sonko ils sont ils ont accédé au pouvoir instant bi nga xam ne ne sur le plan politique encore une fois Bougane Gueye Dany seen adversaire bu sérieux la donc, ils sont en train de lui mener la vie dure. Voilà. C'est comme ça. Hmm, désolé pour pour mais xamna ni ne wax dëgg nag yàlla gëree nga te di nga xeex xeex ba mu jeex tak tak j'ai confiance en toi gars yi ma jox leen sommaire bi rapidement donc xam ngeen ne euh, euh, euh, Mamadou Ibra Kane ak te Alassane Samba Diop responsable yi nga xamante ni ñom ñoo nek feulé patron immédiat yi dañ na convoquer convoqué su altiné lundi feulé à la sûreté urbaine bon on le savait c'est tout à fait normal on y reviendra tout à l'heure ni ma leen ko waxé donc Abdoulaye Sylla bi nga xam moom porte plainte Abdoulaye Sylla ci bopom voilà dafa porter plainte donc c'est tout à fait normal comme Deglu nañu euh, cabinet bi nga xamné mom moy gérer tout ce qui est transactions financières etc., cetera am agent qui nous fa Deglu, waxoon naa dimanche passé c'est tout à fait normal qu'on que ñu Deglu également les responsables euh, des médias du Alassane Samba Diop ak Mamadou il y a rien de d'extraordinaire en fait parce que gis a pas passé ak aux journalistes du coup, partager euh, di ci contane donc dinañ y a une révélation yi j'allais donner des noms mais comme ni ngeen ko y a un plateau site site internet y a un plateau télé yi y journalistes un ak chroniqueurs yi dañu bëgg di positionner. wu. bu ngeen gisee ñu ñu nous dal ci suñu kaw di dal ci kaw les anciennes autorités yi fi tout simplement parce que nous bëgg ci poste yi. dañuy dal les anciennes autorités ak le président Macky Sall l'ancien président etc. etc. et cetera vous ne nga.

bu ko defee extrait boobu la ñuy am na ku ma ko wax te il a te cette personne elle a raison dañ koy dagg dem jox ko yenn responsable passif yi wala ñu nekk ci euh, ministre wala DG xam nga pour comme ça xoggale ko et tout pour wane ne ñoom la ñuy xeex euh, voilà am na njëriñ et tout pour que ñu am lu ñu leen bokkal wala ñu jox leen poste duma leen may loolu parce que vous êtes de petits types comme ni ko kii waxee euh, Babacar Fall journaliste vous êtes de petits gens kon duma leen may loolu mais dinaa leen jox ay misaal wax leen que passif

su ko defee Il ay a une di de xam fi may fi may jëm pour juste pour vous dire que c'est un c'est un groupe de personnes assoiffées de pouvoir des opportunistes des arrivistes mais gëmuñu sax Sénégal bay gëm ay Ousmane Sonko wala ay ay ay ay ay Diomaye Faye lu def nañ ko fi danaa len jox ay tektal te wax len lu bari ci li ni mel. Euh, également dinañ ñëw ci groupe whatsapp bi nga xamante ne journalistes yi ak chroniqueurs yi bokk Pastef euh, moom la ñu ubbi euh, bu ko defee bu tey bu buggaan dalee ci gouvernement bi wala Thierno Bocoum wala keneen ñoom fa lañ koy waxtaanee pour pour pour pour pour waxtaanee angle de d'attaque bi ku ñu ku ñu war a attaqué ak nu ñu koy attaqué ñoom foofu lañ koy toggee comme groupe whatsapp ba ñu ba ñu taxawaloon seen groupe whatsapp bu ndaw woowu ah pour que man su may live ñëpp ñëw signalé

Euh, defe ni normalement je les transfère. voilà donc euh, scandale mi am agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ñu ko woowee ARP gën déglu ma bu baax amna confrère yoo information bi dina len ko jox c'est vraiment mais vraiment scandaleux agence de réglementation pharmaceutique déglu leen bu baax dafa am ñu ñuy woowee ay inspecteurs ay pharmaciens lañ di ay inspecteurs ñu demoon contrôler inspecter ben euh, way bo xam dafa yor pharmacie côté Touba wa joju ñu gis ne day def lu ñu trafic de médicaments mon pharmacien dafa yor pharmacien ba paré à côté muy def trafic de euh, de médicaments moy vente parallèle de médicaments dafa am pharmacien pharmacie dañuy jaay ay garab à côté am même temps ne vente parallèle de médicaments amna na ñi nga xam te dañuy nekk hôpital di sàcc médicaments yi dem diko jaay ji à côté ñen ñi. dañ yor décrété seen pharmacie à côté ñu ñu def trafic de médicaments waajooju ah gars yi la accusé de te damay laajte waajooju ci boppam gars yi dañ la accusé may laajte bu fekkee ne yaa def wala defoo boo deful nga génn wax waaju ñu ngi koy ooye docteur Alioune Ibnou Talib Diouf pharmacien mi ngi Touba. dañu inspecté pharmacien ba tëjlu pharmacien tey jii agence bi nga xamné inspecteur yi ñom fofu lañu joggé pour dem yëri ji mom pharmacien wajoju bañu tejj ko wajoju ci boppam mom mo jité agence bi ci boppam agence de réglementation pharmaceutique donc agent bi ci boppam mom mom moom ci boppam ba wa ñom Sonko ñëwé au pouvoir ak président Diomaye dañ ko jël que le mu directeur ARP inspecteur pharmacien yooyu doon demoon di ko contrôler di ko inspecter tey mooy seen chef te monde, encore une fois dañu dem contrôler ko am ci moom ay soupçon ba tëj pharmacien tey moom moo jiite ñooñu di contrôler ak li ñu war a réglementer pharmacie bi c'est un scandale extraordinaire est-ce que du am ay règlement de compte ak ña ko contrôlé woon est-ce que du am conflit d'intérêt non mafia bi nar a installé wu Sénégal jamono jii jéggi na dayo dinaa ci ñëw bu ci kanamee gars yi bu ñu jógee ci loolu bu ñu jógee ci loolu dinañ ñëw également ci scandale bi bi am ONAS ak Cheikh diggante Cheikh Ndié ak Cheikh ak Cheikh Tidiane Dieng Cheikh Dia scandale ba nekk port liste bi nga xam ne feeñal nañ ko pour aide à la presse bi dinañ ci wax sama invité dina ci wax surtout liste aide à la presse bi dafa am niñ ko defee pour jël yenn presse yenn presse yenn patron de presse yi door lañ ci ko askan bi parce que batay li may wax ni acharnement la té dinaa leen démontrer lutax mané li acharnement la dañu bëgg yenn groupe de presse yi mu tëj dañu bëgg a toroxal yenn patron de presse yi parce que dañ né ñoo ñu dañ leena compte soit da ngay and ak ñun wala ñu liquider la ndax bu dee dette fiscale bu dee dette fiscale tey ji am na ay entreprise Sénégal yoo xamante ne presque deux cent milliards amel nañ ko état bu Sénégal yenn ñi fisc la yenn ñi ay redevance pourquoi ñu singili dettu euh, aide de la presse bi pourquoi ci yeneen ministères yi euh, muy ci dans le bâtiment muy muy muy également dans dans les mines et cetera ñu ngi amel xaalis bu extraordinaire état du Sénégal kenn tudd leen dinaa ci ñëw bu ci kanamee léegi di ngeen xam ne c'est de l'acharnement waaye presse bi patron de presse yi dañoo dëgg dañoo dañoo dañoo dañoo takku ba dëgër Ousmane Sonko gars yi fii kenn ragalu la oh yaa ngi am nak. oh Ousmane oh Ousou bébé yaa ngi am adversaire ndax ñii dañoo dañoo guerre guerre yëpp 10 14 18 39 45 ës ba gouvernement yu bari fekk leen ci jaar ci seen kanam amna ci ñoo xamante ni bañ nekk ci presse bi jamono Abdou Diouf non mu na ne ci fin Abdou Diouf ba ci Abdoulaye wad ba ci ba ci ba ci ba ci Macky Sall dañu guerre guerre yépp do da ngay ak ñi ngay xexal xamoo ñi ngay xexal ñan lañu ak ñu euf oh fi nga duggu baaxut diñ nañu xex ba moy sa bopp si sa say tànk buñ la daanee sa dinañu japp dila diri. oh yëngal nga usu bébé buñ ko sol ko sol ko man ñëw ci également euh, invité c'est Bachir Fofana dina jël également Ben activiste Magita pourquoi parce que gis ngeen né ñu ngi nekk di renvoyer ay nit ñu bari euh, muy port di également yeneen i yeneen i direction yeneen i structure ah dégg naa sax direction des mines amna ñu bari ñu fa dakk mom ci boppam fa mu doon fañ ko doon fayé dañu ko fa dàq moom it donc moom ak i ñoñam ñi ngi war a préparer benn conférence de presse dajale ñi nga xamante ne ni ay ay ay ay ay ay ay liggéeykat lañ ñenn ñi am CDI ñenn ñi am CDD ñu dàq lañ bu ñaaw te ñu nekk ay soutien de famille dañu nar a booloo def conférence de presse wax li leen naqari yëkkati seen baat ca kaw wax àdduna dégg leen ndax lii ñu def ni dugg du yoon dañoo jël ñenn ñi dàq leen te ñuy ay sénégalais parce que dañu defee ne ñooñu ñu àndoon ak Macky Sall

photo ngoog làqatuwuma nëbbatuwuma duul kat lañ yor Sonko dàq ko duul ñëpp waaw day xëy di duul suba ba ngoon bañ ko xamee ba léegi depuis bañ ko xamee senegal ba léegi ci ay duul rek la nekk ci ay duul lay xëy ci ay duul lay gont voilà. moo tax ma ni paa yi nan toog rek paa yi ñoom bekkaay ak consort googu ak kilifa yeeg ñëpp daan. ko koo xam ne boo waxee gars yi ne la nangam toogal booy ñooy raam ba ñëw si yow incha allahu rabbi man maa leen ko wax fii denc leen vidéo bu leen neexee waaw booy yi wooteel Ousmane Sonko ak ñi ko topp naan kay yaay yàlla ju ndaw ak yaay yonanti beeg yaa ñu gënal sunu papa ak yaa ñu gënal sunu yaay boy yooyu ci boppam ñoom ñëpp ñooy raam ba ci kilifa yépp taxaw naan fa nonoo juum ñi ngi jéggalu li ci kanam rawuli li bët incha allahu rabbi <laughs> yàlla baax na te waxoon naa leen ko euh, tey jii le principal adversaire bu Ousmane Sonko ak ñi mu àndal parce que réellement là on pense que qui dirige c'est vraiment Ousmane Sonko seen principal adversaire ce sera le peuple seen principal adversaire mooy yéen ak seeni alliés te li ci kanam rawu li bët bi yeboo na ngeen def seen groupe whatsapp dañoo taxawal benn group whatsapp mu am fa ay chroniqueurs yi ngeen di gis ci site internet yi ak seeni liveur comme ñoom Mollah ak ñenn ci responsable Pastef fii di xool kan lañu war a mën a di attaque kon ni ma la ko waxee sànq bu Thierno Bocoum génnee def sorti wala Bougane gay Dany ñu ñu waxtan ci pour que le lendemain nuñ koy attaquer des dinañ dem fo xamantene des jamono a un an deux ans amna kuma ci doon waxal te il a raison Fek un an deux ans ba sénégalais gis bu baax ne ngeen leen a sur tous les plans di ngeen ak gi Ousmane Sonko ak ak say organe de presse muy Walfadjri ak ñeneen ak ñeneen su boobaa oppo c'est-à-dire que contre pouvoir dafa am lu ñu presse contre pouvoir ne contrôle pouvoir bi de contre pouvoir dafa baax ci dëkk ci dëkk ñooñu la askan bi di jox bop da ngeen di continuer di dal ci opposants yi di yëkkati nguur gi yeen journa journaliste ak ak chroniqueurs yi peuple bi dina leen wëccu sous peu mais li nañ dem ba ci kanam gars yi ñu continuer. ma xool sama sama sama sama sama sommaire wax naa leen ci waa E-Media e gis naa ne ki nga xam ne Cheikh Dieng parce que damay def corrélation bi parce que journaliste bi bokk ci waa Pastef dafa mel ne Abdoulaye Sylla am jaar na ci ginnaaw comme live bi passé dama ñëw di expliquer yu bari ci Abdoulaye Sylla bu Ecotra mais am problème nek actionnaire minoritaire actionnaire ci wa ci immédiat mi plainte euh, Alassane Samba Diop ak Mamadou Ibrakan, dama ci waxone dimanche bi passé ñu dem xol ji ben journaliste bu Pastef mom pour diko joxe ay information pour mu pour mu pour mu yuxul ko fi nga dal baaxut oh Ablaye euh, recul fi nga dal baaxut ndax journaliste Bobé, mom la Cheikh dien don wax ci conférence de presse am ne le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement du Cheikh Tidiane dien jox ay information fay ko pour mu dal ci kawam mom Cheikh Dieng bagn ko bagn ko dàqee c'est le même journaliste ma jox len ay tegtal entre parenthèse ibrakan ak Alassane Samba Diop dem wuyu ji convoqué len sûreté urbaine lu normal la lu normal la parce que encore une fois Abdoulaye Sylla dafa porter plainte kep kuñu porter plainte da ngay wuyu ji c'est tout à fait normal y a rien fi amul ben extra lu extraordinaire journaliste bobé koko agent double la ma wax leen ko fi duma tuddu ay tour comme ni ma nga expliquer parce que dañuy positionner wu bo doon tuddé dang len di may buzz

parce que ñun nag ñun nag dañoo yàgg dañoo yàgg ñu ngi fi depuis année 2000 ba tey kooku nekkul woon journaliste auxiliaire gendarmerie la loolu lañ ma déy man nag li ma fekkee mooy am na journaliste am na journal mu mag bi mu nekkoon sama ancien directeur moo ko oo ci journal boobu mu fay bind daawoon sax bind article day joxe information ay nit ñooy bind article bind turam ci suuf mais amul formation journalistique génnul CESTI génnul comme ñun ci école de communication ndax man ak yéen ñi ànd ak waa Pastef journaliste yooyu ay ñoom Pa Assane ñoom Pa Assane yooyu ñun ba ñu génnee ISIC ñoom si la ñu ñëw ñun au moins am nañu formation bi école bi ñu génnee ñun fa la ñoom Maymouna Ndir ancienne rédactrice en chef bu RTS génne ak ñoom Pa Assane Seck yooyu kooku deful sax formation mosoon na am lu mu génne woon def ko ñëpp di ko daw man bokk naa ci ñi ko soutenir kooku dama ko xam ndekete yow agent double nga waa Pastef nañ la moytu ndax agent double nga yow te am na yeneen i pseudo journaliste ak chroniqueur yi ànd ak Pastef ay agent double lañu ma expliqué leen kooku da doon liggéey ak duudu kooku de am ay ay ay ay ay agent ci renseignement xam nga dëkk day am renseignement généraux da doon collaborer ak renseignement généraux yi pour que mu infiltrer Sonko du mu wax sa tur waaye yow xam nga man xam naa kookee Cheikh Dieng di wax te mu dugg ni ñàpp ca biir dossier immédiat bi kooku agent double la liggéeyam moo doon mu infiltré Ousmane Sonko ñi ko doon ñi ko doon ñi mu doon liggéeyal am na ci ñaar ñoo xamante ne ni ña nga woon biir pare. te ñi doon liggéeyal kenn ki sama xarit la sama xarit la woon temps yi dañ xaw a jàppante mais sama xarit la le monde est petit jarul na ngay dem di wax ak ñoom ñoom informé wuñ ma le monde est petit yaa dugg ci xeex bi Ousmane Sonko di xex ak ñoom nga ci dugg ndax tu te day en train de te positionner da nga bëgg ci poste yi wala ñu ceebal la et tu fais un sale boulot je ne te reconnais plus agent double nga te Pastef nañu xam ne yow agent double nga tay dina ko wax ndax combat bi jeex na li doon neub yëpp dañ koy wax amna site internet bu ñepp xam jamono ji ñu jóg pour nee dañuy protéger le pro le projet am ngeen fa ben journaliste bokku ci seeni plateau koku agent double la yu ngeen def seeni plateau koku amna ben benn ministère boo xam ne ko tuddu te suma ko tuddé da ngay feeñ amna ben moment dem nañu sax ba wa Pastef am ay am ay doute ci yow nan nañ le moytu. kooku agent double la yaa ngi toog di def excès de zèle di wax di xataraayi tëgg sa dënn Macky Sall et tout dañu war a autorité dañu war a tëj patati patata agent double nga tey Anita la ñuy wax parce que moom moo wone boppam moo doon génne di xale yi di di génne xale yi ak ñi di ñi di nekk ci cocktail molotov yi mu leen di taf yow yow c'est pire ndax yow fu Ousmane Sonko doon dem dang fa dan dem kole ko ñap manifestation yi ya doon joxe ay information ñu dem xale yu bari teyewon nañ leen te yow ya doon joxe information yi ma wat ko ça je le dis pour que wa Pastef ak ñi ñu andal yeen Sénégal ngeen que vous soyez témoin tous ces gens là la plupart c'est des opportunistes et des arrivistes ñu Sénégal ñu Ousmane Sonko ñu tous yow moomu nekk ci internet internet site internet boobu ñëpp di coow yéen ne ngeen da ngeen rek pour protéger le projet. journalistes yi ak ñi présenté xam leen ne am na ku nekk ci seen biir xale yu bëri arrêté nañ leen moo doon joxe information yi parce que seeni manifestation moo fa doon couvrir dafa nekk ne ni ñi leen ñàpp nag xoole leen agent double la ma terminé ci agent double yi am na ci ko xam te ne ni militant la Ousmane Sonko Tant yi nommé ko agent double la bok def na à un moment donné Ousmane Sonko dëkk bi ne salaw am bi à un moment donné am l'État est redevenu fort c'est pas pour rien il a fallu des calculs politiques kaso pour nous jox leen nguur gi loolu foog mu leer ñu lu ñu bari du ñu tudd seen tur nag nañu bàyyi ba chaque chose en son temps tay wa Pastef ka ngeen gëm ak ñak gëm on s'en fiche man je m'en fous je le dis pour que sénégalais ngeen xam ñii ils vous ont roulé dans la farine ñu tara té on va beaucoup souffrir dañuy paacoo poste yi ils vont créer de nouveaux riches bëggu ñoo toroxal nak ñun ñi waye du fi amé on continue foog ma gaaw foog ma gaaw jël également Mamadou Fofana jël ko 10 minutes après ma jël après ma jël euh, donc xamna ba 18h comme 18h15 l'a commencé 18h ma jël euh, Fofana 10 minutes après ma jël magita ma yi ma ñëwaat ci scandale bi nga xamante vous en parenthèse gars ñu ngi TV xalaat TV xalaat TV ci De poste et des personnes plusieurs personnes différentes ma gis ngeen ki ñu ba ko te patron soleil journal soleil Lamine Diouf te nekkon fi ci diaspora bi dégg naa moo ci TV te moom moom TV affaire yaa leer Lamine Diouf gars yi nee sa nek nekk fi mu nekk nii amatul dara lu ñuy làkk Lamine Diouf est-ce que ya mom xalaat TV jot mom je m'en fous mais xalaat TV est-ce que ya mom xalaat TV Lamine Diouf mi jité journal Le Soleil lat la bi samp gars yi ñu continuer scandale ARP bi lu jom ci aide à la presse bi ak euh, scandale ONAS bi dinañ ci ñew ak euh, dinañ ci ñew ak euh, ak Bachir Fofana mais ma ñew ci scandale ARP bi

Wa gouvernement bi dañu am pression parce que est passif comme dañu une te te bon ñu ci bari nous bëgg ay ñom Farba Ngom ay ñom ay ay Thérèse Faye ay kanati euh, euh, ah, premier ministre Amadou Ba ah ak euh, ak yene DG yi nous ñu toroxal leen ñu leen ñu toroxal en dañ leen de manière générale lay ministre bu bu xam dafa am lu mu gérer pour nga téye ko ci affaire détournement day jafé lool parce que du mom moy gérer carrément xaalis dafa am day am ay intermédiaire comme dossier product bi en fait pour que nga mën a nit loxo ci poche xana ay erreur de gestion dina mën am mais pour ñëw téye nit ki ne ko yow ya def li gis nañ ne yow ya sàcc xaalis gi oh du yomb kon li ci kanam rawulu bët ñu ngi tok di len sétane ba xam fu warnante du mujj ak i waye nak ancien ministre yi ak DG yi defaru len gaay ñi ngi ci sen kaw parce que il faut ñu am ñu ñu tëral su ko defee ñoom seeni base ak militant yi mëna a kontaan ndax ñu ngi dem législative tay dañoo né ay ay opposants milliardaires dañoo ragal yeen seen koppar comme nee nañ ay milliardaires ngeen ngeen utiliser ko pour mëna gagner ci la élection législative ou aussi une chose pourquoi du y a des y a des structures des institutions qui pour saytu pour saytu institutions de contrôle mais am na nañ conclusion du ngeen ko feussal du ngeen ko feussal ah duñ ko y a nak ndax xam ngeen lu tax duñ ko y a ndax ci ak alliés dafa am ño xam nga fa marito euh, euh, Gagny ça, mi mi nga xamne mo moo ancien DG ONAS momit tuddu nañ ko ci mbiri yi mi ñom mi mi Touré tuddu nañ leen donc instant bi ni buñu ñu affaire yi mën nañ sa yene noné ñu génnee euh, seen mbir ak seen tour tur waaye seen i aussi dañuy feeñ te bëgguñu lolu mais on on on attend on suit on est à l'écoute hein, gouvernement bi usu ce bébé yow ak on est à ñu ngi leen di ngeen financier. pour terminer donc invité dimanche prochain bu mu invité man faire une live bu amul fenn non bi dina metti lool presse bi ci waxuma presse euh, pas de mais presse patron de presse ak nit yi takku pour Akio ak yow Ousmane Sonko billaay on n'a pas peur de toi et tu ne peux pas nous intimider dégg n'a am complexe journaliste yi ndax tey ay ñoom Alassane Samba Diop ak Bachir Fofana xale bu ndaw la ko ñoo la dakk jang ñoo cultivé da nga am complexe journaliste Bagay ba ngay dooru 2017 2018 dara xew dangaa ñëw kole eh, ko ñàpp Pape Alé Niang ci réseaux sociaux yi nga ñëw kole ma ko ñàpp yow ak say militant ñëw ne kole ko ñàpp ñoom ñoom ñoom ñoom am ay dara euh, ñoom kii euh, kii ay dara euh, bi nekk États-Unis mbaaba ay dara mbirum pétrole rek ñoom seen moo la ci jox information yu bari dafa am complexe journaliste yi ma ma déy leen ko moom usu bébé usu fiiriir ñu jeexale ci ARP bi lii c'est un Maïnyan, Bachir Fofana di également mes confrères journalistes nous sëgg ce scandale bi c'est un c'est un scandale extraordinaire li ñuy est donc agence sénégalaise de réglementation ARP Nous avons créé en 2022 ci Covid bi ci conseil des ministres 13 avril 2022 ñu jëloon docteur Oumy Kalsoum Ndiaye retenez bien ce nom xamuma ko yàlla xam na loolu xaw docteur Oumi Kalsoum Ndiaye Ndaw quand on m'a donné l'information dama don def ay recoupement Que kouma wo Ben wax bi nga may wax femme bi elle est extraordinaire elle a fait un travail extraordinaire une femme discrète rigoureuse compétente en deux ans elle a eu des résultats extraordinaires xamou mako yalla xamna lolou xawma xaw ko xam dama don def samay recoupement mi ngi tudd docteur Oumy Kalsoum Ndiaye Ndaw pharmacien ñu teg ko ci bopp bi mu def mu def une technocrate du nag politicienne du def politique technocrate la ñu def ko ci bopp ARP mu def ay résultats ñëpp ko gërëm ñu teggi ko fa ndànk gouvernement bi dañ ko teggi ndànk kuñ fa teg ki ma doon wax léegi docteur Alioune Ibnou Talib juuf xawma j'ai rien contre toi waaye foog nga leral. gars yi dañ la accuser accusation yu grave. docteur Alun ibn Talib Diouf mi nga xam gouvernement Diomaye ñoo ko jël Defko, def ko directrice directeur général de l'ARP Mon, il est accusé dafa am dafa am dafa am dafa am accusation yu grave yu tek ci ay ndoddom parce que ay inspecteur ay pharmacien inspecteur ñoo dem ci pharmacien bi nekk Touba inspe di ko inspecté gis nañ ne mom ci bopom docteur Alun Ibn Talib Diouf trafic de médicaments, lañ koy toppee ba ñu tëj ñu def procès verbal tëj pharmacien tey jii ñoom Sonko est-ce qu'ils ont fait une enquête de moralité on sait pas président Diomaye ak gouvernement am jël nañ ko nommé nañ ko mu nekk à la tête de l'ARP pharmacien yi ñëwoon doon càmbar pharmacien bi di ko inspecté tey moom mooy seen chef kon ça veut dire que kon moom y aura un conflit d'intérêt te it dina am ay règlement de compte ay pharmacien yoo xamante ne nii liggéey lañu xam duñ def dara lu bon ñi ngi ci seen liggéey tey ñooñu ci boppam dina am benn xeex bu metti seen diggante ñoom li kanam rawul bi dinañ ci ñew avec des détails lundi nag lañu dara def mun naa expliquer lundi lañu def nar def euh, donc euh, passation passation bi donc lundi lañ ko nar def voilà et c'est vraiment dommage que légui dañuy gis képp ku bokk Pastef on s'en fout ci li nga ci li nga yor xaliss ou pas on s'en fout euh, ci li nga yor est-ce que tu es compétent tu veux dire ou pas dañ lay jël fal la tek la jox la ay poste xooluñu compétence gars bu lolou wesso donc may leen ma ma jël Bachir Fofana gars ñu ngi signaler live bi de gis nga ñu ngi signaler live bu méttee méttee métti def leen ay cœur s'il vous plaît xaar leen ma jël donc sama ben invité muy Bashir Fofana. gis nga ñu ngi signaler live bi ñu ngi signaler live bu bu méttee méttee métti même bu de dix personnes sax dinañ tok live bu soobee yalla gis ngeen gars yi ñu ngi signalé live bu méttee méttee métti waaye euh, mënuñ jot Bachir foofa na xaama jël kon Magita ñu ngi signalé live bu méttee métti allo Magita Magita maa ngi mang lay ziar mang lay ziar gaay ñu ngi signaler live bi bala bala muy bala muy couper ñu ngi signaler live bala muy couper voilà donc deux deux minutes rek kon nga expliquer ñu ci euh tay ji liñu liñu liñu leen dakk ak li ngeen faral def. d'accord d'accord li ngeen faral li ngeen li ngeen fas def. problème wa ma ci mang lay nuyu bu baax di la ziar. wa wañi li euh, kii bi wañi live wañi live bi. wa wa oh gars yi affaire bi dina dina dina coupé de. oh. ñu ngi yàq laaj bi. allo. wa waa coupé laaj bi coupé laaj bi. allo xaaral sama téléphone bi mooy kiiwaat. oh ñu ngi bi. Euh, je ne l'ai plus. C'est ah, bon? Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, ah, ça va bien. Ñu ngi lay déglu voilà voilà Bala coupé. Uh-huh. Euh, lay yeux followers uh-huh. avec parce que ni. Uh-huh. oh allô Magita moo xam ñu nekk bi. xam promis moo xam ci bi xam promise ak tribunal. Mm-hmm. ñu bëree bëri bëri daal ak direction des emplois ba nga man mm-hmm. contrat an mm-hmm. donc décembre fin décembre laa ko signé début janvier virement euh, février aussi virement mars. Oh. Euh, donc voilà, donc il y a, y a, un gros souci. Ouais, Magita, donc, euh, Magita, donc, il y a un problème réseau. Hein? Magita, donc, euh, Magita, allô? Ouais, vas-y, vas-y. Allô? Vas-y, vas-y. Allô, ouais, Mati? Il y a un problème réseau. y ah, dama un problème réseau hmm. euh, donc on a ma posté ni ni nga xamante ni dañ leen a licencié yëpp dañoo wara génn parce que du yoon. Ah, c'est vraiment dommage. Malgré c'est dommage. bon gars donc nous ko le le dimanche prochain dinadil jël pour que nous puissions synchroniser synchroniser l'épaule. et aussi voilà donc gars vous signale signalé signaler comme vous pouvez comme vous voulez donc les lives on le fera def ngeen ma en 2021 2022 bataille tey ngi on va se battre même avec deux personnes suñu paree ñef ko ci YouTube bi ñu de du ñu live bi su koy def en euh, le le jour J ñu ci bëri replay bi la YouTube et incha allah bi gën les metti def avec la plateforme que que que j'ai mise sur pied bu soobee yàlla dinaa dem un peu partout dem ci Sénégalais yi def ay émissions et ñëpp dinañu xam bu baax a baax a baax lan moo xew Sénégal da ngeen di sonal seen donc gars yi jàmm ak jàmm balaa live bi di couper maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf.